coalition sàmm sa kàddu Thierno Bocoum wax na ko président Bougane biiralaat na ko ba ñuy dem yàlla nag ci mbaaxam seet leen di rek démb ba campagne bi dooree ba tey démb c'est la seule localité à Saint-Louis ou je ne suis pas sorti sur mon toit ouvrant la seule localité foofu kese laa deful caravane taxaw ci kaw convoi bi ci kaw toit ouvrant bi parce que dama nekkoon ci oto bi di wax téléphone mu am fu ñu eggoon ma ne taxaw moo wàcc dugg ci benn pharmacie am lu ma jënd mën a génnaat et tous les services de renseignement peuvent confirmer ce que j'ai dit ils ont arrêté 83 de nos gardes-corps sur ces 83 personnes il y a 8 gardes-corps du mission de tabasser des gens ils que des militants maintenant se retrouvent à se battre avec des personnes qui sont dans la provocation, c'est un autre sujet. Vous êtes en train de chercher quelque chose que vous ne trouverez pas. wante nag dama am lu ma metti wante dama koy assumer wante yéen tamit foog parce que am na fi kilifa bu dul wax dëgg moom moo fi taxawoon ne ba campagne bi dooree ba tey waxul ak monsieur le ministre de l'intérieur wante comme il peut pas se retenir de mentir hier encore il a confirmé à quel point il excelle dans le mensonge dem ba nee na moom woo na ministre de l'intérieur wax na ministre de l'intérieur que Barthélémy Diaz dafa yor ay grenade dafa jënd ay arme dafa yor lii dafa yor laa dafa yor lii dafa yor laa may leen ma tuuti parce que dinaa si delluwaat Je veux m'adresser au ministre de l'Intérieur, mais surtout au président de la République. Monsieur le ministre de l'Intérieur, jotoo benn BR BR mooy bulletin de renseignement bu la mën a jox la preuve que Barthélémy Dias dama jënd ay gànnaay amul amul benn service de renseignement ci dëkk bi bu fi mën a génn benn rapport buy wane ne que dama jënd ay gànnaay wante nag comme waa ji mënul wax dëgg tant que fenul il n'est pas content yàlla dafa amoon lu yàlla dogaloon suma diggante ak yàlla boole woon ma ak moom monsieur le ministre de l'intérieur je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé ce monsieur est venu chez moi ici un jour à la Sicap Baobab il est venu très tôt le matin il avait les larmes aux yeux et il avait la peur au ventre mu dugg fii suma kër fii Baobab mu ñëw ne ma dañ ma bëgg a rey ma ne ko kenn du la rey mu ne ma dañu bëgg a taal suma kër ma ne ko doomu ndey du ma toog ci seetaan ñuy taal sa kër yéen xam ngeen ma lu may wax nii lu may wax nii xam ngeen lu tax dugguma waat kuy waat mooy comme su amee lu mu bëgg a wone wante dama ne je di su ngeen tegoon fii la Bible ma waat lu may wax man du ma fenkat du doomu fenkat mu ñëw fii ci suba si à matin na ma dañu ma bëgg a rey ma ne ko loolu munul nekk yàlla du ko seetaan mu ne ma dañu bëgg a taal suma kër mu sàkk ci man ndimbal jamono yooyu nag dëgg la nag jamono yooyu amoon na lu ma doon toggee ma am lu ma def ci moom mu am ay bagages yu ci man parce que dëgg dañ koy wax rek ñun lépp lu ñu def ci politique. dañ koy assumer lépp parce que yàlla rekk dul juum def nañ ay yëf peut-être su nekkoon tey amaan nañu defee ko neneen bu mu ko waxee ma am lu ma teg ci loxoom am lu ma ko won ba ab lu ma ko jàngal moom te mu may dégg ku nga xam ne ni musul gis dara ci àddunam ci ay mbiru gànnaay voici monsieur le ministre de l'intérieur la vérité Cette personne n'est rien d'autre qu'un bonimenteur qui a fait que vous racontez ce qu'il a vu chez moi et je l'ai que leneen amu fi dama ko jox ay bagages jàppale ko boole ko ak ma jàppale ko te aar njabootam te bu may dégg ne il faut pas avoir une mémoire courte moom bañ koy jàpp moom ñu jàpp toute sa sécurité je vous invite vous de la presse à revoir les archives Pendant neuf jours, il a été escorté par tout mon, tout mon personnel de sécurité. Les archives sont là. Il connaît toutes ces personnes. Pendant neuf jours, Djendoul Essence, Djendoul Sandwich, il a été escorté par mes gardes corps et mes véhicules avec mon carburant et ma logistique. Tu n'as jamais vu dans ta vie une arme à Moi, j'ai eu un permis d'armes. Mala Won Fetel, maa la woon nu ñuy chargé arme maalo la woon chargeur maa la woon lépp tey ngay taxaw di ma yolle su la neexee wante dinaa la wax ñaari baat du mën ak yow du mën ak yow parce que man dama doon wut dëkk bi juróom-ñaari weer ci ginnaaw askan mi ne ma du yow yow la askanu Sénégal tànn kon nag cooli cooli bi yëpp du mën ak yow te ala kulli al man ak yow dina daje dinañ daje mais yàkkamtiwuma la coow li coow li bi yëpp yow la ak askanu Sénégal juróom-ñaari weer ci ginnaaw dañ leen fen fen fen fen ba ñu am yaakaar ci yow ndeysaan wante tey lu tax ñuy sant yàlla mag ak ndaw góor ak jigéen ku la bëgg ak ku la bañ ñëpp nangul nañ la dara Sénégal kuy fen yaa yaay seen baay fen nga ba fenal sa fen nga lu nga xam ne du sa at du sa génération moo tax na nga xool lu ngay lijjanti sa conflit ak askanu Sénégal parce que si tu penses une minute que 83 Sénégalais dina ñàkk seen bakkan muy nul ngay continuer di leen di woo ci gàtt sa gàtt sa rek sa da ngay fooye sa xel tey nag dama doon toog di la xaar ma xool est-ce que wax dëgg yàlla est-ce que am nga san sañu def lu nga waxoon wante tu as confirmé encore que doo ñitu kàddu wante nag lu may ñaawlu mooy ngay jël ay doomu jàmbur ngay jël de des enfants innocents ngay jël ay xale yu xamul sax àdduna nga leen di yebal fii moo tax maa ngi ñaan xale yi surtout askanu Baobab xale yi suñu duggaate fii dégg naa nag tey da nga leen chifaayu wante nag suñu ñëwaatee suba da ngeen may ndox ak glace parce que ñoom soxlawuñu leen ku ñu soxla mooy ku ñu yeb ñun askanu Dakar ba taxaw ne day taal Dakar kooku la ñu bëgg a xam fan lay jaar ba taal Dakar soo xalaatee que kenn ci ñun fii mu allons t'aider à avoir encore du sang deret tu es assoiffé de sang yaa xam foo jëm ak sa ay sarax wante doo ko fi amee yow nag dañ la fal am ci yow yaakaar nga foog ne ni que mën nga nekk ak sa ay xarfu fuufa continuer di ne da ngay nax nit ñi balaa may dee mais eh, dañ la bindal ordonnance su Valda. ah kon maanaam meew waaye moo maanaam meew waaye.